bi taxale ko ak diine ji directement erreur boobu man laa ci ne def nañ ko lu ñu waroon def mooy insertion wu diplômé en arabe bi nañ ko bàyyi ak fonction publique nañ ko bàyyi ak ministre de l'éducation nationale nañ ko bàyyi ak ministre de l'enseignement supérieur supérieur mhm. ñooñu gérer ko mhm. ci ñu créer ay université yeneen comme ni mu ko waxee sànq parce que étudiants yi dañoo bari mhm. arabe bi rek bac arabe bu officiel bi dina génnee par an 4000 4000 bacheliers yooyu mënoo leen a orienté ci université yi fi nekk donc même bu ñu amul seen université spéciale nañu am benn université boo xam ne dina mën a continue nombre bu bari ci ñooñu ñu doolee université bi nekk Touba parce que déjà boobu taxaw na. Mhm. créer ay université yoo xam ne c'est ay université yoo xam ne enseignement technique la dañu xamul ne ñiy jàng arab mhm. li ëpp ci ñoom dañu leen a farale diine mais li ëpp ci ñoom ay techniciens lañ. Mhm. li ëpp ci ñoom c'est des techniciens parce que ñoom dañuy jàng mathématique bi algèbre bi les matières scientifiques que loo xam ne ki jàng français du ko du ko ni jàng mhm. donc ñooñu il faut ñu am ay débouchés kooku mooy benn bi les diplômés en en en en arabe fi ñu nekk nii d'accord naan leen utal ay insertion loolu lool loolu yàgg demandé mm. parce que ñoom ñu ngi dugg fi public mais benn bunt la ñu am mooy enseignement même boo defee dans les ministères maintenant non dama ne la benn buntu la ñu am mooy enseignement. daaw daaw la président Macky Sall ubbi. mais concours ah, direct bi la ubbi. ok trois at mi. te ñooñu lu ñuy def diplomatie kese concours. nga xam ne un fonctionnaire mën na ko def dugg ENA dañ ko tëjal les diplômés en langue arabe. ok dañ leen ko tëjal ñooñu mënuñu dem nekk gouverneur mënuñu dem impôt et domaine mënuñu nekk et domaine domaine mënuñu dem nekk gouverneur mënuñu dem nekk ah. nekk nekk préfet pourtant les compétences mi ngi ci ñoom hmm. et puis ñoom sax dañu am benn plus hmm. parce que ki fa dugg ak diplôme francais hmm. niveau ba mu am moom da koy am déjà en français ah, ba noppi am am arabe xaw ma ndax xam nga fi may waxee mu donc yooyu ay buntu la ñu war a ubbi ko benn armée bi militaire gendarmerie douane. concours yi police concours yooyu. diplôme yi bokk ci arabe boo nekkee arabophone boo déposé ñu teg fee sa diplôme. oui ñu teg fee sa diplôme. ah oui. Hmm. parce que parce que lan arabophone nga parce que man du ma baatu arabisant parce que ñun kenn arabisé wuñu ñun nous sommes des sénégalais. yu jàng xam-xam jëfandikoo làkku arab pour jàng xam pour jàng pour xam-xam mu ngi mel ni nga jël wolof bi rek ku nekk ku nangoo nekk francisant nag yow la tubaab bi def la moom def la français mais ñun nous sommes des arabophones parce que dañu dëkk dañu dëkk Afrique dëkk Sénégal jàng arab donc mën nañu tudde ay arabophones mais pas ay arabisant kenn arabisé wuñu loolu benn la kon donc concours yi fi am yépp magistrature bi mm-hmm. ñun dañ fa bëgg a dugg nañ ñu boole ci concours bi ñu def defal ñu formation. mais ce que ni ngeen jàngee àtte du ni ko diine jàngalee. déedéet dañ koy jàng ni ko diine jàngale ba noppi jàng ko ni ko àdduna bi d'accordé. Ah. boo demee ci dëkku araab yi seen université dañ lay jàngal dafa am lu ñu tuddee euh, sharia wal qaanuun donc dañ lay jàngal fa benn faculté la benn faculté lay doon sharia bi lan la wax ci àtte yi. ba pare ne la xaanuun canonique bi maanaam wala xaanuunu. Euh, li àdduna bi nangu ne daal lii mooy seen i loi aussi nii ak nii ak nii ak nii lay demee loolu moom université yëpp ñoo bokk nu ñu koy jàngale donc ñoom insertion wu diplômé en arabe yi man d'accord naa nañu leen insérer mais bu buñ leen tëjal benn buntu ci ci ci journalisme moom Sénégal am na ay journaliste yoo xam ne ñi ngi ko jàngee ci arabe am pagaille mhm. mais mën ñu nekk fonctionnaire dañoo mujj dem ubbi seen yëfu bopp si la la bokk rahmatullahi alayhi fal euh, fal euh, Fadel Gueye ci la bokk dañoo dem ubbi seen journaux wu bopp seen rajo bopp seen i télé bopp pour mën a exprimer pour mën a exprimer wu en li ñu pour mën a exercer xam-xam bi nga xam ne dañ ko jàng ci ci làkku arab mm. li ma mm. bëgg a wax ci tënk mooy lépp loo xam ne sénégalais daf ko soxla ci administration les diplômés en langue arabe am nañ ci droit nañ leen ko ubbil bu ñu demee nag wane ak ak médiocrité ñu ñu ñu ñu ñu génn leen mais yow kii defagul dara nga ne ko d'office doo bokk parce que langue te langue bi sax nekkatul barrière parce que ñoom français bi ngay wax ñoom dañ koy wax dañ koy bind plus ñoom ñu am arabe boo xam ne yow amoo ko donc kon man laa dama gis ne ñoom lu ñu wax ne jub jubal jubbanti man d'accord naa nañ ko def surtout jubbanti bi mooy arabophone yi nga xam ne dañ leen a beroon nañ leen wan leen war ñu leen a dañoo war a bokk parce que li ñëpp jàng la ñu jàng. wala sax de plus. c'est un problème de communication. de communication il faut ñuy wax. pa xam mm-hmm. c'est ça.